bokk yi gannaaw bu nu sante yàlla julli ci yonenteem ba seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi bal xaq ñépp di balu xaq ñépp yàlla na nu yàlla boole jëggal di fedd li suñu bal xaq ñépp ci luñ yëg ak luñ yëgut di ñaan yàlla yàlla na nu yàlla boole jëggal te dox ci suñuy diggante ba li waral toppante ba tax muy wax ne bu ëllëgee balaa kenn dugg aljanna day am luñ dind ci moom muy la taxoon lam guuxaloon moroomam bay toppanteek moom ba bis penc di ca yàgg yàlla na nu yàlla tàggaleek moom fii amin wa nazaana ma fi udxuluha bi salaamin aminin wa nazaana ma fi sudurihim min min xillin ixwana ala surril mutaqabilin tomb bi ñu fas yéenee fàttalante tey dañoo toll temm ci waxtoom ni ko subhanahu wa taala tërale jaamu yàlla gum tàllal ab joxoñam bu àggee rek day am bu ca sësaat saa bu ñu génnee ci weeru koor weeri aj mooy tàmbali weeri aj yi mi ngi tàmbalee ci weeru korite diggi ba ci tabaski wi ñu xam ne nag aj makka benn la ci ponk yi nga xam ne soo ko boolee ak i moroomam muy ñuy ñeent muy ñeent loolu la ñu tuddee al islaam yi nga xam ne jëfe ko day feeñal pas-pasu gëm yàlla bi nekk ci xolub nit ki ci jullit yi nag yàlla na yàlla wanal boppam ba seen gis leer daa mel ne fa ñu ko war a teg ak nañu ko war a jàppe day des lool am na ci ñu yàlla mën a gan lool bu ñu déggee aaya bi nga xam ne ci la ko yàlla gàlle ci loosu jullit yi daf ne yàlla doon ngim doon buur di boroom di bind la weesu woon ak liñ fekke ak lay ñëw lépp am na sañ-sañ ci gàll jullit yi ku ko ci man mu dem aji makka yombal na ko lool ndax wenn yoon la wax bu ko mënee ci dundam bu ko mënee nag man-man bi mi ngi tàmbalee ci amug wér fekke ko te amug wér am paas am lu mu fi bàyyi am lu mu fay yóbbaale su demee dimbandiku ca dimbandi ci dimbali ca way néew doole ya wér gi lim ciy jariñ mooy su demee mën a jooxe yi bokk ci aj gi yépp bokk yi aj sañ-sañu suñu boroom ak kàttanam daf caa feeñ ba tax na am xelam kese-kese bu ca dund pas-pas bu wóor moo cay dund ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi jullit yépp topp ba mu ajee ba àggal wala laata muy tàmbali laata muy tàmbali la ne xool leen lu ma def ngeen def ko xudu anni manasikakum ba mu jeexalee it mu ne ñuy ñëw ëllëg it nañ laajte nu ma ko defee woon ñu topp ci sama mboor yal na yàlla dimbale ñuy dem ñu dem ci jàmm te fekkaat ñu fi ci jàmm waaye ku dajale charte yooyu xam nga al fiqhul islaami nag day wax ne ku xas ba wax ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah yent yi gàllu na ci aw loosam li feek noogaa ngi dem ak dikk ba ca jiitu nga xam ne moo gën a dëkk ak ñun mooy julli yi juróom julli yi juróom al fiqhul islaami àtte na ba noppi niñ koy defe ak ku ko bañ a def azaka àtte nañ ba noppi ki nga xam ne daf koo man te bañ koo génne dañu koy daan jël ko ci alalam am amoon na ci jamono Seydina Abu Bakar ba muy laaj asaka ba àgg ci aw gaay ñu bëgg a duut duutal dana ne leen lu du yónent bi doon def sama bakkan laa ca teg lu ñu doon nangul yónent bi kenn du ko gàntul tàmbalee ci maam weeru koor it yàlla ak nit ki ñoo xam waaye képp ku ne fang lànkit di wane ne da ko lànkit am na fu ñu jaar ak moom waaye bi agsee ji aj makka nag dañ ne ku mën a aji ci ak wéram akuk talam ak jibaam ju ko attan mu lànk kandaare nañ ko bàyyi ak yàlla yàlla nag léeg-léeg nga ne bàyyi naa ak nit bàyyi naa la ak yàlla mu ne bàyyi nga ma ak sama xarit waaye ñi xam lan mooy bàyyi naa la ak yàlla soo séqee ak ñoom ba jaar foofu xam nañ ne ñàkk nga pexe luñ jàppoon danañ ko bàyyi ba ba nga leen di jàppaat ngeen ànd yéen ñaar dem ci yàlla ci jàmm kon dara jarut cib jullit mu bàyyeekoo fi suñu boroom xool ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah jëm waxoon mu wér ndax daana ko jëfe nit ñi di ko gis ci ay julleem ak i wooram ak i natti asakaam ak ak moytu tooñam ak mën a jéggaleem ñu xool mu def jaal wu yaatu ñu natt natt xamuñu jaal wa lu ko yaat lu ko lu ko lu foq bëñ ba noonee ndekete daa mësta aji makka loolu dara jaru ko ci ab jullit mag ñi nga xam ne ñoo fi jiitu woon te lislaam jaare gi seen loxo ñëw ci nun amoon na ci ñoo xam ne dañuy dem ba ci seenum pénc ku musta aji makka doo fa am kàddu duñ la tere nga toog ci pénc mi ndax ci dëkk ba nga dëkk waaye doo fa waxe nag loolu lañ ci jublu woon mooy soññ ku ko man ñi ko mënut ci jéem ko ba dem makka su ko defee su ñëwee nag ba sol yooyu ñu daan sol su aw xew amee mu génn teg ka ca kaw bopp ba sañ a jot sañ a jël kàddu léegi ab soññe la wa lu ama am solo la ci ponk yu mag yi la bokk kon ku waaj bay dem na xam ne ak payam ma nga fa toog di ko nekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na kiy aji makka suy aji fas ci yéene jaamu ji yàlla jëfe ci ndigalu suñu borom ndax mën na ko fekke ne ko tal na ko su ko defee niñ ko ko santee ba noppi na ko wóor ne bu ñuy lim waa aljanna bokk na ca alxajjul mabruur mooy aj goo xam ne nañ ko santaane na nga ko defee ca yéene ja fu ñu fa war a dem nga dem fa fu ñu war a toog nga toog fu ñu war a taxaw nga taxaw ba mu àgg ak payam moom ma nga nee tege aljanna la aljanna nag taxoon na nit ñi kër këri ba ñenn ñi tax ñemewuñoo lekkati ñemewuñoo naan ba dara di leen raw gannaaw ubbi nañ bunt boo xam ne ku ko defee nañ ko waxe dem aljanna yoonu aljanna nga noonu jar na ko jar na lu ko ëpp sax ndax bokk yi li ñuy ñàkk ci alal dem makka léeg-léeg nit ñàkk lu ko ëpp fuuf te xamut buñ ko waree fay kan moo koy fay kon bopp fu nit ab jullit mën a nekk ci kaw suuf bu fekkee daa paasoon dugg ci avion dem fa avion ba mu duggoon ba ñëw fa su ca delluwaatee ne ko dama bëgg a dem Makka dana ko yombalal ak demam Makka am na ñooñu dañ naan maa ngi bitim la damay nekk ba ñëw Sénégal xanaa kon day nekk ba ñëw Sénégal door a tàmbalee julli foo jëm ak foo mën a nekk ci kaw suuf am na fu ñu naan la fii moo jëm xibla mooy moo jëm màkk booy julli kon fu mu fekk waaye bu ko fa man-man bi fekkee rek bu mu xaar am na suñu nag ñëw waaje Sénégal ñu xam ne diw a ngi dem mu ànd ak diw muñ xam diw ñoom gis ko fa ñu teertuwaat ko ci Sénégal ganalewaat ko comme ni ñu koy waxe da koy gën a la fuuf rot ci ku ndànk dem bu ñëwee bu koy wax ñu naan ndax wér na wala wérut am na ci ñoo xam ne loolu lañ cay bàyyi xel loolu matu caa bàyyi xel aj màkk amul njistal amut déggtal amut di ko yéem waaye la ca am solo ci tënk yu gàtt mooy xam ne daa am ay arkaan moom la ñuy wax farata yi mu fexe ba matal ko am lu ñuy wax ay sunan mooy waajibaat yi ak yoo xam ne bëgg nañ ko aj def ko lool ak fuñ ne fii nangam lañ fiy def ak nangam lañ fiy wax dem gi am na solo waaye yóbbaale xam ko ba mu dugg ci sa bopp dana tax bu àggee mu yëg ne ñëwut ci tukki boo xam ne day wut day wut si rek xam-xam bu dolli ko ca lam xamoon ci lu mus ta gis wala ñu mus ta gis waaye déedéet ba ca jiitu mu xam ne yàllaa fa woote wuy ji wootab yàlla nag laaj na waajtaay ndax ci niti àdduna yi kuñ ci ne diw da laa soxla nam koy wuyjee waajtaay wa ma nga aju sa kilifa ga ko woo rek bu dee ko yemamaay mu waaj waajtaay wu yemamaay bu dee ku ko tanee tuuti mu waaj waajtaay wu tanee bu dee ku leen yilif ñoom ñépp nag jaral na ko sax xotti ab ndobine bu yees ak dàll yu yees bu dee koy sol mbaxana mu jënd mbaxana mu yees dana fexe daal ba bu ko kookoy ne surtout gis ko du gis ci moom lu ko naqari loolu nag suñu borom subhanahu wa taala moo ko gën a yaayoo ñépp moo tax mu ne woon Seydina Ibrahim woowal nit ñi woote dong moo la ci war koo woo ba mu ñëw nag dana gis la tax nga doon ko woo muy njariñam kese njariñ nag la ca féete kaw munta weesu dem aljanna yàlla nañu ko yàlla jàppandalal muy bu njëkk bi def ko te yàlla tax mu def xam ne yàllaa ko war a santaane moo ko san moo ko sañee santaane moo ko santaane ñaareel ba mooy sellal ko ànd ca ak ixlaas ju mat sëkk bàyyee ca xel yàlla képp mu bañ a am ngistal bi ma junj léegi bañ a am déggtal bañ a am naw jëf ci ixlaas imaamul Ghazali ku sëñ bi tudd la ci ay mbindam lu bari day nettali na ci ixlaas am na bis benn jaamakatu yàlla bu ñépp xam ci ragal yàlla ak jëfe ndigali suñu boroom benn bis mu romb ci barab ñu ne garab gee day gaay yàlla lañ ko def yàlla dañ fay rendi ay gàtt di fa rendi ay gëléem muy seen yàlla ñu bari sax di ko tudde seen doom far ñii di ko dénk seen waa kër ñi dagg ca bant ya di takk ñii di xooj di naan mu muñ ko muñ mënu ko muñ xam ne yàlla képp lañu war a jaamu mu jël aw sémmiñam ne su ma demee danaa ko dagg seytaane dogale ko ne ko boo ko daggee it dinañ jaamu ji geneen garab te ngay dem ci la la yàlla digaloon te yam ca mu lànk ne bët set rek moo tee ma dem ba muy dem seytaane doon jeneen jëmm taseeg moom ne ko sëriñ bi te ngaa wàññiku lii ma lay dig moo gën a yomb lee nga jëm mu ne ko waxal ma dégg kuy wax ak yow moom boo ko naree boo ko boo ko nangoo déglu rek gañe ne ay tomb yu bari ci yow aw yoon ubbiku na ngir mu jàllale ci yow li mu bëgg a jàllale mu ne ko demal fexe ba fukki fan ak juróom yu tegaloo yépp nga jullee ko sa kër te sa jullikaay boobee saa boo jullee ba sëlmal yëkkati sijaada bi xool da nga gis ma tegal la fa ñaari dinaar mu ne ah loolu moo gën a yomb lii ma doon def ndax ñaari dinaar dama ko sox daal di wàññiku ne kuj dëpp julli tisbaar yëkkati gis ko fa tàkkusaan tisbaar timis gee def ko ñaari fan ba ko ñetteel gisul dara mu ne xam naa teel gee tax xëy dem liggéey teel a wàcc lool fas yéene julli tisbaar julli ba noppi yëkkati seytaane ne ko yow daan naa la julli yu jëkk ya yàllaa taxoon yàlla nga doon jaamu ba nanguwoo muñ ci sa dund feneen fu ñuy jaamoo lu dul yàlla ba nga bëgg a dagg garab googee waaye xam naa ne julli yi ci topp yépp dinaar yee tax ngay julli kon dilootoo ngir yàlla kon njaag ña fa nekk yéen a yam képp ñee dañuy jaamu garab ngay jaamu ay dinaar kon ixlaas di def te yàlla képp tax bokk na ci li tax nit di jóg di aji ñetteel ba it ragal yàlla bokk na ci li tax nit di aji ragal yàlla la koy firndeel mooy farlu ci def lu baax luñ ne la ku ko def gën a jege yàlla boo naree aji ak boo narta aji yépp it loolee nga teg ca sa tànk duutoo ko teggi rawatina nag ku dem ba makka ak nam toll ci sunu boroom ak ni mu toll ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak jamono jim doon ndax yàlla moo bind lépp waaye tànn na ca ay barab tànn ci ay jamono tànn ci ay bis tànn ci ay weer moo taxoon mu ne kuy dem màkka te fas yéene teg tànkam ci taqwa na def yób na na wutub yóbbal kuy aji màkk na def na wutub yóbbal yóbbal ba nag mooy taqwa wa tazawadu fa inna xayra zadi taqwa ñeenteel ba mooy lu mu cay def fekk xam na ko junj naa ko léegi commission yi ñuy tëral yépp di ci taxawu ajkat yi moo xam muy état wala privé daa mel na bokk gu ci jàngal nit ñi ni ñuy aje am na réew yi nga xam ne dañuy dund diine dëgg-dëgg ñiy dem màkka déwén bind nañ leen ba noppi su ko defee bu aj gi jàllee ñu tàmbalee leen jàngal déwén la ngeen di def defal leen lu mel ne Kaaba nu ñu koy wëre Safa ak Marwa jamaraat yi fii ñu sànnee jamra yépp ak Musdalifa nu mu féete Makka ak Arafat ak Muna ba ñoom bis bu ñu ne cëpp ca barab ba it duñ amuk jaaxle ndax mokkal lañ ko ni ñu mokkale Fatiha te bala ñoo bàyyi kenn muy dem ñuy nangoo jël xaalisam danañ ko fit mu wax ko niñ ko ko waxe woon mu doon noonu ñu door ko bàyyi mu dem aji mag fii nag ci réew mi dañoo dese lu bari dañuy jël xaalis rek dugal la ci avion dugal la ci hôtel am na ci ñoo xam ne ci la ñuy jëkk a gisee fanaan ak yàlla ci néeg buy sedd gu yi te xamoo fu nga la luy bàyyi ko ak di yéeg ko wàcc si loo xam ne day mel ne am xunti mooy dugg rek mu wàcc nga ne cëpp gis sa néeg wala nga ne ci nong ba yàgg mu ubbi ko gis sa néeg foofu lañ ko jëkk a gisee kéemtaan yooyu ñu fay yéem dana dox seen diggante jaamu yàlla yu bari moo tax ñi leen di yóbbu am liggéey bu rëy nañuy tànn ñoo xam ne xam nañ aj màkk lu ñuy tekki ñaareel ba bu ñu xamee li muy tekki ñu man ko dem demaat jàng ko dem demaat bari nañu koy jàng ñoo xam ne bu ñu fa demee rek tàmbalee gag ndax nañ ko doon jànge ak ka fa demoon ba bind barab yam yi tudd ne barab sàngam ngay jaare duggee màkk di ko génne màkk sax tudd tudd noonu boo ko laajee nga dëkk màkk ay fanweer at ci ginnaaw wala ñeent fukki at duñ ko mës a xam duñ ko xam kon aajana coono bu metti junj naa ko léegi yonent bi moo ne woon sallallahu alayhi wa sallam xudu anni manasikakum loolu nag xam-xam moo koy taxa man juróomeel ba mooy yëg ne tukki bii ngay tukki du tourisme du tukkib seeti ay taax rek du tukkib seeti ay rabi àll comme ni ko ñenn ñi defe wala amoo loo def rek am vacance képp na naa dem aji rek jeexal fa waxtu bi wala bu ñëpp yi nettali nga nettali ni ñëpp kese waaye tukkib wuy ji wootab yàlla bu tegee ci gëm yàlla gu wóor goo xam ne su doon la mu warta doon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du ko mës a jiite ne ay ci leen ñu dem xool leen ni may def ngeen di ko defe ndax yonent bi amutoon jotug di def loo xam ne aka bàyyi di def lu amul njariñ wala muy bàyyi lu njariñ nekk waaye moom daawut yónnee danaan kaay leen ñu dem topp leen ma ñu dem sallallahu alayhi wa sallam mu yëg ne itam makka googee nga xam ne fa la aj ga nekk ak la ko wër makka ak la ko wër fa la aj nekk moo taxoon yonent bi jógee Madina Munawwara ànd ak saxaaba yi dikk mu xam ne ñëw na ci dëkk bopp waxee su dafa def safaan waaye di ko fa yéene képp yàlla da cay fay jëf da cay fay da ngay dégg ku naan nañ dem ba àgg fa ñuy faye wax bàyyi jëf des na fay wax te waa ji jëfagul mi ngi ci alquran boo demee ci alquran suratul an'am da nga ca fekk wa qaalat alyahudu yadullahi maglulatun gullat aydihim wa lu'inu bi ma qaalu yàlla nee na ci alquran des na fay waxi kese te fekk waa ji jëfagul sax yahud yi dañ ne woon yàlla loxo bi loxo bi yàlla bi ginnaaw day maye loxoom daa am kot lu am kot mooy loo xam ne du kum neex jot ca day am ñu may jox am ñu may baax yàlla ne yonent bi déedéet ñooña ñoom la yàlla def seen loxo yi ñu am kot ndax amuñu bu ñu amul doo ko amul doo joxe loolu ñu wax ne loxo bi yàlla daa am kot ba du joxe nag yàlla rëbb na leen ci lu'inu bima qaalu bal yadaahu mabsuutataan yunfiqu kayfa yashaa am na feneen foofu fii daf fee teg mbugal yahud yi rëbb leen ci lu ñu waxoon waaye am na foofu dafa dugal aw nit aljanna ci ay waxi kese jëfaguñ dara wa ma lana la numinu billahi wa ma jaana min alxaqi wa natmau an yudxilana rabbuna maa alqawmi alsalihina fa asaabahum allahu bima qaalu jannatin tajri min taxtiha al anhaaru xaalidina fiha wa dalika jazaau almuxsinin ba ñuy waaru ba yàgg ñu jooy lu ngeen di jooy ñu ne ñu ko li ñu dégg mu jóge ci yàlla alxaq moom la sëñ bi waxe jaa min alxaq jaa alxaqu lil xaq lépp di dëgg wëlbatiku nañ lu ñu jàppoon bàyyi nañ ko mënuñoo ñàkk gëm kët nangu xam na dëgg rek kay dëgg la yàlla lay digg ëllëg de bëgg nañ ca ànd ak gaa yu baax yàlla ne ci alxuraan seen wax jooju seen pas-pas boobu ñu wax ne fàng ci pénc ma ci la leen yàlla defale aljanna bu ëllëgee joo xam ne buñ ca duggee dutuñ ci génn yàlla na ci yàlla boole kon Makka bokk na ci barab yi nga xam ne ku fa fas lu dul noonu sax yàlla dak ko ca dak ko koy fay wa man yurid fii bi ilhaadin bi dulmin nudiqahu min adabin alim kon ku fay dem mu am yëg-yëgub ne fii mu dikk yonent bi wax na ne garab yi fi nekk ak rabi àll yi fi nekk ak nit ñi fi nekk ñooyam képp ci barab bi ku fi dugg raw fa shajaru wa saydu wal insaanu wal xayawaanu fi mamanin min al xawfi wal adaa wa man daxalahu kaana amina fiihi ayatun bayinatun maqaamu ibrahima wa man daxalahu kaana amina boo fa gisee lëg raay dong lañ la ci sant bàyyi mu dem boo fa gisee kéwal lum neex neex a xool ak lum neex neex a jëfandikoo boo ko mënta jox mu lekk bàyyi mu dem pitax yi ak picc yi xew léegi nga xam ne moom la ñuy berndee pitax yi màkk bokkuñu ci ñoo ko yow yéen a fa yam képp bañ nañ ko sax xawma bu jëkkoon waaye xawma léegi waaye bu jëkkoon su takk der di dàq nit ba mu dugg ci fi baras bi tudd xaram day wàññi ko taxaw xaar ko foofu ba mu génnaat waaye du kenn du fa làqar ci ku fa làqu su demee it mu yëg yëg yëg boobu ginnaaw doo sañ a dagg bant di ko soccoo ca garab yi màkk ya doo fa jàpp lëkk doo fa jàpp kéwal boo fa jogee nit sax nanga ko taxaw ba mu ne jéggal naa la ndax daa dugg ci kaaraange suñu borom kenn du loroo ci kaaraange suñu borom yëg-yëg boobu itam dafa mat a yóbbaale kon wattandiku fa ab safaan farata la ca moom la suñu borom di wax ne ku nar a aji dëgg-dëgg na xam ne du saa bu ko neexee rek mu aji aj daa am ay waxtu ami weer kum ñor ba mu fas yéene jóg dem nag na fexe ba bu demee bu mu fa def ay caaxaan bu mu fa def ay mbóosóor bu mu fa xuloo bu mu fa xeex alxajju ashhurun maalumaat fa man farada fihinna alxajja fala rafasa wala fusuqa wala jidaala fi lxaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ku aj makka lam yarfus wa lam yafsuq ka yawma waladathu ummu rajaa ka yawma waladathu ummu ku aji makka te yii ñu wax yépp sàmmonte na ak moom doxu fay caaxaan doxi caaxaan nag seetaan fi yii xew léegi bokk na ca ku dem makka wërtatal dara lu dul xam ne yàlla may na ko lu jafe am na ñu ko yàgg mébét ba faatu yàlla dogalu ko ci ñoom am nañu am man man ba sa dëgg la yàlla dogal na ko waaye sabab lu ñu ko itam nag ba faatu am na ci ñooñ mas nañu aji sax aji nañ waaye bañ demee jàppandi gum leen jàppandi tax na faale wuñ ko ba jóge fa faatu ci diggante bi bañ xamee ne def nañ fi lu ñu war def rëccuwaat kon ku xas ba àgg xamut ba xam dana am ajawaatam déet na gaaw xam na lu gaaw lu baax dañ koy jëkkante mu fexe ba teg tànkam fañ ko ko tegloo su boobaa yonent bi nee na day delluwaat set wicc ci bàkkaar ni liir buy soog a judd kon boog waxtu aj jot na ku ko yàlla man loo yóbbu sa wayjur baax na lool waaye jëkk la dem yow ba noppi yow mi mën a yóbboo da ngay jëkk a dem ba noppi ndax bala ngaa laax jaay da ngay laax lekk ba suur mooy tax doo def koo jaay koo tànqalus koo tànqaale ca su yàggee nga dugg ci capital bi te doo ko yëg waaye ku ko man tey ndaw bu mu nekk ba ne ba doon mag Sénégal liñ xam ci dem Makka mooy mag lañ yaakaar ne moo war a dem ndax mag dee doo nga ko dese déedéet moo ne mag day dem gone di dem te soxla nañ fa kàttan soo déggee ñuy wax ak wér kàttan moo ca jiitu am na barab yooyu dañ koy dox ak i tànk moo ca gën su ma nee am dara jërul nag man koo dox ak i tànk ne yàcc yàccaaral ba mënutoo ko dox ak i tànk ñu dem dinañu teg ci ay puus puus dara jëru ko am ci diggante yoo xam ne soree na soree koog oto yu koy dox am na waaye boo duggee oto mën naa yeexal yenn ca kanam ta nga waroon ko def moo tax jàmbar yépp dañuy boot seenub saak di dànkal dànkali ba matal seen farata yépp ñëw nag dallu si bàyyee seen bopp ak yàlla waaye am na ci mag ñooñ ku leen fa yóbbu boo wëtu ñaan nga nga waroon a amee ci ñoom mën naa amul safaan gisees na fa koo xam ne dana yéen ay wolof ngeen ñu ne waaw waaw mu ne kon de gindiku naa maa ngi jëm barab sàngam ñooñu ne ko xam nañ ko ñu ne ko nag dañuy dox de ba mu doxee ba sonn ba mënut a dem te yàlla bind ne ko noo xam ne neexut a jël di ànd ak moom di yor di dem dañ koy tëddal rek mel ni ko faatu ñëwoo ambulance mu ne ñareet laata ambulance di ñëw mu ne sama doom yi ma fi indi yàlla na dee dafa maa yàgg bañ xamoon naan dana ma rey mag mu toll ne man nga indi ma ci dëkk boo xam ne bii xaw ma la ñuy wax xaw ma xaalis bi sax bàyyi ma ci tuskare ji tuskare ji moo ne moom moomu di jàmbur yonent bi gonométrique aj fuuf coonoom ci mbay mi rek la yem waaye bu duggee fa muy dal day sedd guy mu yor xaalis boole ca lu ko neex jënd waaye ñax ñàkk gi ñàkk dund diine dëgg-dëgg xam ko ca teel daa jàpp ne ngóor si cuskara la ko dugal waaye lii jaru ko jaratu ko te loolu ku ci dugg da ngay tàmbalee xalaat ba xam sama yéene jëma yéene woon mi ngi dëgër ba tey am dal kon ku ko man ci ak ndawam na daal di dem te bu dee yóbbu ka muy yóbbu mu teel a yóbbu kooko it kooko teel a dem ba mën a matal lañ fa war a def incha allah bu gënee jegewaat danañuy duggaat ci yenn yenni tomb waaye ñu xam ne aji makka àndut ak puuka réew jërut yenn yi rawatina am na ñooñ bu ñu ne da ngay dem makka ren boo leen laajoon danañ la wax leneen lu dul dem mag li ñor si bor mënuñu ko fay seen kër bis bu ñu fa fanaanut duñ xam ba xam reer nañu wala ndekki nañ kooku boo ko bëggee yóbbu da nga koy laaj ba xam ay borom mu fay nga bàyyil ko fi lu wóor gannaaw mu ni su ko tere ku ñëw des na togg añit nga ne ko lii boo ñëwee ci lañ ne toggal añ am xelam dal dana tax su demee dana gëm ne li yàlla rek moo ko mën a maye kii defaluma ko dara lu jar mu dama yóbbu coono bi mu jar mu def daa am lu mu ci bëgg may itam su ma demee danaa fas yéene lañ fa bëgg lépp ma def ko mooy tax muy muy talañaan mooy tax muy sawar ci dem di julli ci ak a dikk ak a tawaaf ñu xam ne it ñi dëkkut makka ñun sénégalais ku ci dem makka tawaaf bu bari mën naa gën ci ñun fuuf ay rakka yu bari rawatina rakka yi ñuy def bu ñu soog a dugg ci jàkka ji ñun moom tawaaf moo gën ci ñun waaye ñi xaw a yaafus tuuti nag dañ koy jàmbata jàmbat ba far bañ a demati jàkka ja far loolu nag dara ci àdduna jëru ko foo xam ne da nga ko daan dàkk sa girug dund foo dem na ana fu mu fare yàlla yóbbu la fa ñun la mi ngi ci dëkk bii nga nekk dara jëru du jullee feneen fu dul ca foofu bu dul sax li ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne julli fa ni mu gën a julli ci yeneen jàkk ju dul jàkkaam ja moom bu dul loolu lépp bu ne la Makka fii la nekk ci dëkk bii nga nekk dara jërul toll la ci néeg ndax wii ay pila nekk wala fii ma nekk da sës ci kaaba gi sës ci kaaba gi di toll la ci sam néeg moom nga xam ne da nga koo tiim la suñ fa lu waxoon ci jàpp ak tiim rek daa def fatwa laaj daa def laaj fatwa mooy tontu laaj waaye daa laaj ñu ko seere si woon ñooña bañ ba ngan nga neexee ba neex dañ koo laaj ñoom ab laaj ni ko jàpp ak tiim lañuy laaj lu ci ëpp daraja mu ne dinaa leen tontu insha allah ba ñuy yeweeku mu teg fee as ngise soo xam daal dis gën a xaalis ne ñii ne woon tiim a gën su ngeen demee ngeen tiim ngisa see dellu si xamuñ lu ca nekk ñu dem tiim ko dellu si ne ko defoon nañ la nga ñoo waxoon mu ne yéen ñi ne yéen nag dem leen jàpp dem leen jël ko yéen jàpp ko ñu dem yëkkati ko mu des gan ñu wàññi mu mu mu takku lool mu ne leen nii la tiim mel ak jàpp dem dal ci kaaba gi foo xam da nga koy tiim taxut a dem ca kaaba ga day jar wàcc dox say tànk dem ba àgg te bokk yi foofa lu waay